www.sangatv.com waa SIPS ginnaaw bi ma leen nuyoo ñoom ñoo yónnee bataaxal ka nga xam ni moom mooy Alioune Ndione oustaz imam Alioune Ndione mi fi ñëwoon aljuma bi paase huissier moo ko yot ngir xamal ko ni dàq nañu ko tifaaxan ginnaaw jaar bi nga xamante ni jaar na ko fii si jàkkaarloo muy dogal boo xam ni waa SIRS jël nañu ko donte sax inspection du travail àndu ci boole nañ ko ak ñaar ci ay naataangoom dàq leen te imam Alioune Ndione si kàddu ñu nangoo ci moom xamal nañu ne jamono jii SIRS dafay nëbbuntoo ak nguur gi ndax mu ngi déclaré lu ñuy oowee euh, motif économique pour dàq leen alors que fayit la ci gis-gisam ndax nee na ab machine tàkkatu fa kenn liggéeyatu fa lu mooy ñañu fa téyendi ngir ñu écouler ñu jaay li desandi ca la ñu jotoon a liggéey fu machine tàkkul nag foog naa ne fay na war na ñoo mën a def fayit bu fekkente ni kàddu yooyu mu wax méngoo na ndax méngoo naam méngoowul ut nañ ci pexe jéem a jokkoo ak Mactar euh, Anne bi ñu jokkoo ak tey jotuñu ko waaye bi jàkkaarloo weesoo ajuma bi passé jot nañ ko talaata bi ñu ko jotee xamal nañu ne dafa yéex a gis SMS bi moo tax réagirul mais amoon na yéen a réagir waaye ay kilifaam ci altine ji ñoo nekk kat bu ci wax nañu toog ba xool ana yan anam la ñuy doxalee waaye doxalin bi jiitu mooy talaata yoone nañ ab euh, bataaxal huissier jox ko Alioune Ndione ak ñaar si ay collègue am dàq nañ ko malgré décision bi inspection du travail jël ne war ñu leen a dàq mu mel ni kon Birima Ndiaye am na liggéey mook ak ay naataangoom yu CNTS ndax ñu ngi doon marche bi passé ci ci mbedd yi pour le droit des travailleurs Birima bonsoir est-ce que d'abord est-ce que yéen sax mobiliser ngeen yéen seen marche bi. ah loolu kay maa ngi lay fay Khalifa yaakaar naa ne ñun li li ñu mobiliser ci Sénégal. Mhm. parti politique mos ko mobiliser ci marche. ñun politique gu ñu. loolu man man de gis ko si télé bi. Ah, si non loolu lax d'ailleurs tey devant tous les Sénégal dinaa demander pardon Bouba Ndour. ah loo def boobu. parce que daf daan déplorer l'attitude de la RTS may défendre RTS. waaw déedéet yow non man ay jàll mu def waaw lu dama ñëw rek lu mu jot a man ñëpp xam nañ ci àdduna damaan défendre RTS pour dama daan daan leen la rek dama jàpp ni maa ko moom principe la ma jàpp nañ ko war a dañu war dañu war jàppale mais euh, Khalifa hmm. doon naa comprendre ñun ñuy politique sax Racine Tane dama faral Macky Sall du ma du ma du teg samay opposant xam nga loolu sax mais bien que du yoon qu'est-ce que tu es en train de dire na ko def mais ay liggéey kat yoo xam ne ñooy mars APR nga ca PS nga ca PDS nga ca réew maa ngi le droit de travailleur liggéeykat. mbir ma looy déplorer. waaw dama RTS couvrirul sa manifestation. non da ko sax bañ a teg. ku la wax ne Racine Talla moomul RTS. bàyyil Racine Tala. non man turam laaj war ko deux fois mu dégg ko. jotuma ko baat waxal laa jot. du moom mooy chef de rédaction. dama ni dama ni moom mooy directeur dama ni dama ni woo ko deux pour wax directement ne ko yow doon woo RTS moomoo ko. écoute Birima te RTS ñoo ko moom même wax la. mën na bu tuuma. Hmm. Racine Talla gënuma faral Macky mais bu ko nee daaneel Macky parce que dañu nangu ñun notre réew mi nekk ci esclavage te nag daa wax leen je défie l' état sénégalais. su défie l' état bu amatee ñu ngi may dégg syndicat la. Birima tu mesures tes propos damay damay défier bu amatee bu ñu demee BIT au à Genève au mois de mai juin. dinaa yuuxoo ministre du travail foofu. ah déet biir mais dinaa ko def pancarte ne bu dee. doo mënuñu maa tere man BTM invité man délégué national yóbbuñu ma. jaaruma ñoom ma tere te bu defa teelu mel nii. ñun waa syndicat bi ma dégg baax foo kaf bu ñu dema tee di def marche ay syndicat di def marche. Racine Talla di censurer les syndicalistes. mais Birima tu peux pas dire ça dinañ ko ministre du travail. tu peux pas RTS ñëwul couvrir la ma tax couvrir ñoom ñoo ko xam. parce que dictateur la mais déedéet tamit. sa gala moom mu réew mu d'abord Birima demande leur on va avancer bu pour faire plaisir à Macky Sall ñun gënuñoo gëm Macky Sall. bon gënuñoo ànd ak Macky Sall. gënuñoo liggéeyal Macky Sall. ok Birima dañoo ànd ak Macky Sall ci ngor mi dañu ànd pour noot réew mi. quand d'accord Birima d'accord d'accord peux pas préjuger de. li tax dictateur. bref un point dafay dellu see ci Ligue 1 bi ana lan moo ko waral mooy waa tribunal du travail excusez waa tribunal arbitral daal daal du du sport Birima mais Birima ma ne défies personne t'iras nulle part pour yëkkati say pancarte. na ko defaat boobu écoute waa léegi laisse-moi faire. faire une deuxième fois. Bouba c'est quoi. en dama bëggoon dama bëggoon tout euh, tout parce que bon il a si quand même cité mon nom. dama bëggoon préciser benn affaire. parce que quand même si télé lañ nekk. Mm-hmm. moi personnellement je n'ai rien contre la RTS. parce que RTS man maa ko moom. Hmm. mel ni ma ma ma contre sam bopp. dañuy am droit ñun ñëpp wax suñu waxee rek si peut-être que jëfinu benn nit la mais bugguma sol mbubbu je suis. contre la RTS. non non li nga wax non non non mais Khalifa waaw dafa nàkk laa wax non non laa wax ni non dama ne dama ne. pour pour préciser li mu wax. cest di dire que aujourd'hui li am solo ba am solo mooy que sur les actes yi nga xam ne. yenn nit yi dañ koy posé loolu baax moom mooy indi problème entre nit yi ak ak ak la RTS mais la RTS en tant que telle mm. man maa ko moom mënu ma ko compte par contre am na ay actes yoo xam ne bu fa amee c'est déplorable et puis si euh, jël dogal delloosi ko ci Ligue 1 bi muy loo xamante ni méngoowul ak gis-gisu ñii di supporters yu euh, stade de Mbour ginnaaw jote bi nga xam ne moo waraloon ñu aj leen te ñoom ñaar ñu séqoon ko mu amoon ca stade Demba Diop bay nit ñàkkoon seen bakkan ndax ñoom waa Stade de Mbour dañu jàpp ne bu ñu leen dugalaatee nii tembere ci biir championnat bi mën na indi yeneen tolof tolof te bu boobaa ñoom duñ ko mën a assumer loolu sax moo waral ki jiite woon seen euh, comité des supporters daal di tekki ndombal tànkam di Alassane Ndiaye moom moo teew Alassane salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. alors d' abord la moo tax nga démissionné. waaw euh, doo ma may. balaa ñu nuyoo kay. waaw maa ngi nuyu waa senegal yëpp euh, di nuyu waa mbuur Euh, di jaale euh, euh, waa këru diine yi nga xamante ne kilifay wàññeeku nañ ci ren ku ci mel ni Tivaouane di jaale waa Touba xalif général bi fi jógee jamono yi di jaale tamit waa Mbour. très bien ñoo bokk ko bokk. ndax nuyoo nga waxoon yaa ngi jaale. après la ngi dédicace. ma ma rek. ndax aw moon opportunité toog ci plateau pour mën a jaale li ma wax li ma bëgg a wax ndax waa mbuur tamit dama leen di dama leen di jaalewaat parents victimes yi. Hmm. ndax mag ñoom ñoo dëkk mais xëy na. ba affaire yi comme amee ba léegi aw moon opportunité bi mel ni toog ci plateau mën a wax ñu dégg ma très bien ma leen di jaale di leen ma saw coono di ñaan yàlla tamit euh, li amoon mu bañ a amati ci àdduna ok ñu bokk très alors on revient la question je répète waaw répété nga démissionné waaw li tax ma démissionné moom umpul kenn parce que ñun toog nañ un jour toog déglu ñu ne ñu US Ouakam dañ koy indiwaat ñu laaj lu tax ñu ne ñu taas te ñun dañoo jàpp ne US Ouakam bu fekkee ne dañoo war a dem ba war koo indiwaat ci footballu Sénégal au moins ñun waaye Stade de Mbour ñi nga xamante ne ñun ñoo ci amoon ay perte war ñoo mën a toog ak ñun waxtaan trouver terrain d'entente xool ci ban anam lañ ko war a indee mais bu ñu xëyee rek na ñu US Ouakam dañ koy indi dañoo xalaat ñun suñu xalaat bu gàtt ne xëy na mën na jur leneen ëllëg moo tax ma teg sama ndombal tànk ndax umpalewu leen ne fii réewu Sénégal te réewu yoon la tey dañoo seet na lépp lu xew rek ñu ne ana njiit man nag stade de Mbour dama koy wax haut et man sama deret la nekk. Hmm. jaral na ma sama wakken bii mais na tegu ci yoon. boo li waral sama démission nag du lenn lu indiwaat bi ñu indiwaat US Ouakam bëgg koo forcer mu football bëgg koo forcer mu ñëw mbuur la xewoon 15 juillet ñu bëgg koo jël tegaat ko suñu ndodd ñun waa Mbour te. mën na am sax lu raw loolu moo tax ma teg sama ndombal. tànk li nga wax ni da ko xalaat da ko da nga ko xalaat dama ko xalaat. dama xalaat ok dama ko xalaat yàlla na yem si xalaat. yàlla na yem ci xalaat. Mm. looloo waral ma teg sama ndombal tànk en tant que président comité supporters Stade de Mbour lettre baa ngi ni mu indaale leen mu leer ci bëtu ñëpp. très bien yéen li ngeen fustigé si euh, ci dellu see. Euh, li ngeen li ngeen fustigé si dellu see waa waa US Wakam c' est euh, da ngeen jàpp ne gaañ bi cicatrisé gul contre leen mu dellu see mais pour yéen dafa teel c' est ça. waaw Khalifa euh, Sénégal dëkku jàmm la te réewu jàmm la ñun ay sénégalais lañ ñun xam nañ ne wakaam mënuñu ko tere footballati ci àdduna loolu mënul nekk mais nag lépp loo gis ci àdduna rek dafa war a am fu muy jaar ba tegu ci yoon ndax bu fekkee ne Stade mbuur dafa football ak wakaam 15 juillet Stade mbuur li mu ci war a def mu def ko am ci lu mu ci am ñëpp Sénégal gépp gis li xew keroog lépp lu stade mu doon def def na ko di xaar yoon am ñu mu téye ñu mu teg loxo ci li ñu wax am ñu mu teg loxo topp dossier ba ñu ne Wakaam sanctionné nañ ko bu ñu xëyee même pas si mois waa mbuur ñu ngi jooy seeni néew ba léegi ay blesse ñooy ñëw stade comité supporter bi ma jiite woon am na ñoo xam ne beeke lañ ba tey dañuy ñëw am na ñoo xam ne feer yi nekkoon seen tànk dindeeguñ ko am na ci ñoo xamante am na sama copain boo xam ne ñooy ànd ba moom bu ñuy way day taxaw mooy téye micro bi moom bëtam fii lañ toj dañ ko opéré xaali ñaare bu ngeen amoon vidéo yi léegi di nga ko gis moom la ñuy wane muy taf bët bi nii moom day ñëw ba léegi nii ci comité supporter bi a ngay gis cicatrice bët bi day jékki-jékki ne ma alu man de sama bët bi dafay lëndëm fan yi ma ne ko bu demee ñu bindal ko ay ordonnance ak yooyu mu ñëwaat ba léegi nii bët bi day jékki-jékki mu lëndëm yooyu yëpp ñu toog ko ñun mbuur di ko muñ kenn musuñu dégg musuñu dem tele wala ñu dem rajo mbaa ngeen dégg ñuy menacé wala dara yooyu yëpp ñu toog muñ ko jàpp ko boole lu ñu naqar ñu neex yëpp teg ba championnat bi commencé waat ñu nekk di football ñu xëy même pas six ñu ne dañuy waat yéen wakaam am na loo xamante ne day mel ni kokkali nit la. ba Alassane wax nga sànq ne réew mi daf réewu yoon la donc c'est un tribunal donc yoon la. yoon la mais dama ne la. taas dossier bi sanctionné wakaam fii ci Sénégal bu ñu ko tegaloon taas du indiwaat wakaam. très bien Charles quelle appréciation. Euh, il faut éviter de rendre leur grave Sénégal fu mu toll nu tey dañ dellu suñuy xel jàmm la soxla hmm. jàmm la soxla euh, il a raison nun naa ko comprendre si benn point parce que pour man je suis convaincu que lu xew le 15 juillet wax naa ko fi du benn du ñaar c'est une faillite collective 15 juillet nous sommes en campagne électorale 2017 di dem législatif 30 juillet match final bu mel noonu bu waree am dafa am ay préalable yoo xamante ne du ministère de l'intérieur au ministère de sports en passant par lu mu tudd la fédération des sports kii euh, euh, la fédération de football dañuy toog ñu xool match bi à risque la wala du à risque mais match bi ñëpp waxoon nañ ko match à risque la yéen xam ngeen ko waa Mbour xam nañ ko waa Wakaam xam nañ ko ñun xam nañ ko wax nañ ko match ba ñëw ñu xool image ya ñu ko découvrir si image ya gis fa lu doy waar effectivement fédération jël benn mesure tas tas ko le tribunal international du sport tas ko mais nous nous sommes boo xamante ne dañu affilié am fu ñu bokk ñu affilié ñun tam on peut pas faire n'importe quoi hmm. léegi lan moo ñu manqué xëy na mooy lu muy wax loo gis mais ay wax la d'abord dafa am benn traumatisme qui est profond mais traumatisme bi Mbour a été affecté dans sa chair avec la mort de ses enfants Wakam est affecté pour avoir été présent le jour et provoqué peut-être d'une certaine manière wala nekk bés ba c'est hmm. malheureux mais ñëpp a jooy donc de ce point de vue lan moo manqué à mon sens mooy il faut ñu toog ñu waxtaan parce que match mbu euh, euh, Wakam mun na jouer peut-être pas maintenant mais Wakam mën na jouer à guichet lu mu tudd. Euh, ñu koy waxee à huis clos. mun mën na jouer à huis un championnat ba mu jeex takk à huis clos. loolu yëpp ce sont des possibilités mais noonu toog wax parce que comme lu mu ko waxee la blessure elle est là. Hmm. loo xamante ne dina gaaw a cicatriser parce que képp ku dem ba Diop. ce premier choc booy dugg Demba Diop bu fekkente ne mooy ce sang là boo xamante ne il faut que nga effacer ko. il faut ko gis nga euh, Khalifa mm. le Sénégalais s'amuse à se faire peur dama koy wax souvent mm. euh, nous avons banalisé la mort elle est dans notre quotidien avec les accidents ñu ñi dañuy dee léegi n'importe comment mm. agression yaa ngi euh, recommence dañ ko commencé miss dañ commencé miss ñu xool lu xew fii démb rek lu ñaaw lu xew suñu dëkk boo xamante ne au sud alak cest il y a des choses yoo xam ne foog ñu def ndànk wax bi commencé na bëri man lu ma leen di ñaan mooy que il faut que ñu toog tuuti réfléchir bu baax bàyyi yenn wax yi. très parce que parce que fu jëm ça sent mauvais. très bien Bouba. waaw mais <clears throat> en fait pour man euh, quand même ku ku wax wax dese il faut il faut nga wax parce que dafa am ay je pense ay xew-xew yoo xam ne su amee ci réew. Hmm. waaw il faut ñu interpréter ko autrement parce que lan lay symboliser. ban leçon lañ ci war a jàng mais aussi ban acte lañ ci war a poser ba nga xam ne ëllëg ah nit ñi dinañ comprendre que ni am na yenn acte yoo xam ne soo ko posé lii moo la ciy fekk parce que wax fa dëgg yàlla avec retenue bu ñu mënti am je pense pas que Sénégal nekk na benn dëkk boo xam ne am nañu ay nit yoo xam ne dañuy bëgg xàmb wala bëgg gars yi xeex wala rayante mais dafa nekk leneen loo xam ne aussi dëgg bu jotee quelle que soit émotion yi ñu nekkee ñu quand même ñu jaar si parce que man je trouve que euh, six mois après li xew fële que ñu réintégrer benn équipe muy jouer ci championnat bi ça me pose un grand problème man personnellement. pourquoi parce que tout simplement euh, état en dehors de la loi dafa am benn responsabilité pour jàngal suñu ndaw yi que ni benn comportement waruñu ko am. parce que bu ma dellu si waatee si li nga xam ne moom lañ fi waxtaanee bi drame bi amee bu ñu indiwaatoon émission yi ñu fi def. ñun ñëpp enseignement bi ñu ci jëlee moom mooy que indiscipline ak violence bi ak maa ngi fàttaliku moowu professeur. Hmm. et je me rappelle que même si yenn kàddu yi dama doon jéem a sax essayer de de dire que on pa pas. aussi ñun ñëpp pour un peu xaw a wàññi affaire bi. mënuñu six mois après ñu effacer loolu. Hmm, hmm. acte bu nit ñi posé jeunesse bi nit ñi dañ ci war a jàng te nan nga ci jàngee mooy que su ma defee lii lii daf ma ci fekk. on a perdu. ay jeunes. on a perdu ñoo xam ne seen njaboot ci ñoom la yaakaaroon. li ñuy dund aussi il faut ñu comprendre ko. te am na yenn niveau yoo xam ne de souffrance yoo xam ne su ko nit yi amee il faut que lenn moo leen di soulager mooy que quand même ñu poser ay actes yoo xam ne daf leen di. réconforter réconforter et je pense que fu fu décision tribunal amee appel am na da ngay tëj dañuy tëj nit. mu dem déposer recours mu prolonger peut-être un dépôt de recours non, de la Wakam est déjà programmé. Ouais, mais non, non, non, attends, m'expliquer. Non, non, demain, un dépôt de recours. Je ne parle mm. même pas de Wakam. De l'État de, la Fédération ou de l'État du Sénégal. Mm. Peut-être que donne un retard d'échéance ah, la saison bi jeex mm. Pourquoi on se précipite pour réinsérer l'équipe Bobo au championnat c'est inadmissible parce que quelle que soit émotion yi nan waxante dëgg sans appel donc Charles Charles précise que c'est sans appel waaw waaw mais non mais quel soit quel soit lu munte am man xam nga lu ma jaaxal Charles dafa am benn wax bu mu wax responsabilité yi dafa partagé c'est pas que ki jël ki jël nit ki dóor ko xeet wala dara dafa partagé état bi def ci am responsabilité fédération def ci am responsabilité et jusqu'à preuve du contraire par rapport au sanctions yi nga xam ne ñoom la ñu imposer nit ñi bëriwul ñu nga xam ne hmm. au niveau de l'organisation ils ont été sanctionnés ba ñu gis ko boobu te loolu dafa am solo ça veut dire que à la fin la journée qu'est-ce qu'on a retenu de ce qui s'est passé mm. ben rien du tout très waaw euh, comme ni ko gaa ñi waxee rek waxoon nañ ci déjà mais su ma déggee à peu ni ngeen di waxee nii hmm. euh, ak niñ présenté kii bi ak issue bi mu am day mel ni dans le fond c'est le la morale hmm. boo déggee ma ne dans le fond c'est le droit contre la morale parce que xam nga bu fekkee da nga jël la décision ci niñ ko jëlee ci anamu droit mm. tas bu fekkee ñun nekkuñ ci benn ilo bu ferme mais dañu dekk ci mouvance mondiale mm. nga xam ne muy football muy basket muy handball dafa am loo xam ne moom moo nekk ci seen kaw juridiquement parlant mm. te loolu moom mooy décider moom mooy arbitrer conflit bu fekkee da nga ko xool sous ce rapport la doo am argument pour tas li mu def waru ko def à partir di moment où yow yaa adhéré yow yaa affilié wu yow yaa nangu ne en de conflit boo xam ne mënuñ ko régler à l'interne bu amee recours suprême c'est au niveau du tas ñoom ñoo koy gérer. tigi ça c'est le droit. Hmm. mais à côté de ça ni ngeen ko waxee yéen ñëpp pour lui voler son terme habituel intelligence politique. Mm-hmm. au sens large du terme. dama yaakaar ne waroon na may donte décision boobu si na. ñun ñu am nuñ ko gàttandoo par rapport ak compréhension bi nga xam ne ñun am nañ ko par rapport ak li nga xam ne nekk na rancœur maanaam mu nekk ñu mu koy waxee ci wolof euh, benn haine benn fitna boo xam ne ñaari parti Sénégal waaw benn xaar ma yàlla boo xam ne am na diggante mm. euh, ñaari rak parce que waa Mbour waa Wakaam c'est pas des Sénégalais à part ils sont constitutifs du même Sénégal donc l'intelligence aurait voulu que mm. au ñu toog croiser les bras nii bon le TAS a décidé fermer les yeux mu jàll ñu xam ne en dehors de l' aspect juridique y' a un aspect moral boo xam ne am na benn blessure am na benn fissure ba mu créé ci réew mi ñu jël décision bi taataan ko ba pare intégré li nga xam ne moom moo ci lalu te xëy na tas jëlul en charge dimension boobu parce que kii wax droit il est impersonnel kii wax droit il est au-delà des clivages des sentiments moom géréwul l'ambiance psychologique géréwul la possibilité que les gens s'entretuent géréwul loolu dañ ko jox ay documents sur la base de ces documents ay experts am xool ne bu dee lii la conclusion yi lañ ci tiré lavé nañ ñi mais ñun suñu responsabilité mm. en tant que état tout court moo waroon nekk gàttanu décision bi ne ah est-ce que bu ñu gaawee rapidement au bout de cinq mois six mois ñi ñu delloo si la lan que te au préalable defuñ travail de médiation bi nga xam ne hmm. moom lañ waroon na def est-ce que newul day jur fitna tigi mais hmm. li ma ci yokk rek mooy il faudrait pas que ñu dramatiser ko c'est vrai que drame la déjà parce que bakkan rot na hmm. mais bu ñu fàtte la vie d'une nation de toute manière elle continue en résumé en résumé mooy bu ma sañoon xalifa jàkkaarloo ak président Youssou Ndour day organiser benn match de gala. boo xam ne dañuy opposer US Wakaam ak Mbour parce que Sénégal la ñu nekk. waaye la ko lal mooy. Mm. nañu waxtaan. te ñi nga xam ne di ko bokkar waxee. Mm. parce que ça c'est extrêmement important li tax mu garaaw mooy. da ngay am sentiment que mën naa rey mën naa def lu ma neex. Mm-hmm. mais que au bout d'un oui. temps record par des subterfuges juridiques mën nañ enterrer loolu. xam nga loolu warul loo xam ne mën a nekk dugg ci biir xol yi. Hmm. donc dama lay ñaan nga organiser retrouvailles yooyu hmm. gaa ñi du ñu ay noon hmm. c'est pas possible ñun ñoo bokk réew mi li am am na ba pare amoon na démb <coughs> amoon na barki démb mbuur googu nga dëkk ka ñu tuddee stade Demba Diop bii naka la dee dañ koo faat keneen ak keneen ak noonu la waaye taxul histoire bi arrêté wu nañu xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk xol yi dal xol yi jiif duñ mos a yegg ci ñaari Sénégal yoo xam ne bii Mbuur la féetee bii Wakam la fa féetee ku nekk gàddu say jaasi ak ay fetel mm. ay ndaw ngeen réew mi yéen a koy tabax lii am am na wax dëgg yàlla nañ bés xol yi su ko defee ñu toog waxtaan juboo xol ci yan anam la ñuy continuer doxal li ñuy doxal ci biir réew li nga wax li nga wax xalaat bu rafet la mm. donte ni ñu ko waxee nii mm-hmm. ak euh, bar gi mu bar mm-hmm. waaye benn benn bémol lay am benn bémol dafa ma fàttali tout de suite li mm-hmm. imam Assane daa wax mm. sébb kenn du si ji waaw sëbba xam nga sëbba boo si jiwee loo si ji jiw wa day day tàkk waaw mais xam nga xam nga donc na non sëbb du tembare gi non sëbb du sëbb tem tembarewul sax hmm. xam nga sëbb bi fi mu nekk hmm. ci xol yi la dëgg la ci xel yi la hmm. waaye sëbb amu fi waa wakaam a ngi dem mbuur waa mbuur ñu ngi ñëw wakaam tigi ñaari entité la yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu tàggat yaram bu ñu nangu ni sëbb la parce que bu ñu nangoo ne la ñu ngi dëggal ne képp ku jógee wakaam bi dem mbuur yaa ngi ci fitna kër ku jógee mbuur dem wakaam yaa ngi ci fitna mm. duñ ji ci sébb mm. dañuy ji ci suuf soo xam ne luñ fa ji mu naat xam nga mm. suuf soo san la suuf siñ ne ay mag ñu baax ñoo fi ñaan ne fitna du fi am kon nañ ko jiital suuf siñ boo demee wakaam fekk fa ay waa mbuur yu cosaanoo mbuur di sey wakaam boo demee euh, euh, wakaam fekk fa ñoo xam ne mbuur lañ dëkk genn wàll gi mbuur genn wàll wakaam donc sébb amu fi kon ni ñu def loolu di nekk ci xol yi xam nga René Mahe premier l'un des premiers directeurs généraux de hmm. ba muy régler violence dafa ne fan ngay régler violence elle naît d'abord dans les cœurs et ensuite elle se propage dans la conscience hmm. il faut aller combattre la violence dans le cœur et dans la conscience pour la combattre dans la réalité matérielle bu boobaa dañuy fàtte US Wakam dañuy fàtte US Wakam fàtte euh, Stade de Mbour fàtte Stade de Mbour jiital Sénégal jiital Sénégal waaw man dama buggoon commencer pour par par rappeler mm. c'est bi mu fi amee ñun ñëpp dañoo ànd naqarlu ko mm-hmm. ñu ne nañu bàyyi yoon def liggéeyam et que mu am sax je me rappelle je faisais partie de ñi xaatoon ne que la justice service na dem jusqu'au bu sanctionné ñi ñu war a sanctionné ce qui a été waaw ce qui a été fait mm. si d'accord di bàyyi action judiciaire bi di dem mais il me semble qu'aujourd'hui dafa am benn benn amalgame parce que bu ñu jëlee euh, euh, tribunal arbitral du sport je ne me rappelle pas wala gis par exemple si cas quelqu'un qui a été arrêté wala nekk instruction tribunal bi wax le TAS il ne se prononce que sur l'aspect purement sportif mm. ça veut dire que tout ce qui est criminel tout ce de son ressort c'est c'est l'État du Sénégal et sa justice mooy li prof je pense que hmm. pour ñu bañ def le sport dafa nekk une entité indépendante qui a sa façon de faire qui regroupe tous les pays du monde dans toutes les disciplines du monde dafa am ay instance dafa am lu ñuy doxee dafa am lu ñuy évoluer dafa am son marketing sa politique financière dafa am son indépendance mondialement parlant di doxal ci loo xamante ne ça n'a aucun rapport avec la politique aucun sur les aspects judiciaires mosoo gis tribunal euh, tas ne ñëw Sénégal ne non juge bi libéral diw wala diw c'est pas son problème hmm. il apprécie sur des faits purement sportifs. C'est un amalgame que, que, les gens sont en train de faire. Il faut avoir le courage de le dire. Moralité, moralité boobu professeur di convoquer ça c'est à l'interne si ñu biir ñun à notre fédération de voir comment faire. Mm. Mais le fait que le TAS ait décidé de réintégrer euh, ça c'est une connotation sportive je crois que il faut nga mm. nga nangu ko wala nga génn ci sport. non euh, bien comme ak li Charles beneen euh, affaire bi l'option huis clos. Euh, beneen ah, mais tout ça c'est sportif ça c'est sportif ay huis clos ça c'est les de sportives yi ñuy jël pour régler des problèmes parce que mm. dafa sévère dafa dafa dangereux mais dama bëgg xam fàttali ne tas du du mélanger aspect pénal c'est pas un tribunal correctionnel buy daan sursis non mm. ça c'est purement sportif mm. beneen affaire bi en tant que sénégalais man je dis soit da ngay sportif soit tu n'es pas sportif sport dafa am yu mu ay obligation yu muy àndal. Euh, il est arrivé dans des nations guddi yoo xamante ne kenn du nelaw parce que y eu des injustices sportives qui ont mais paralysé tout un pays. mais le lendemain les gens se réinscrivent pour repartir l' essentiel c' est de participer Pierre de Coubertin il le rappelait loolu mooy soubassement mooy sooklu sport. mooy fair play donc soit on est dans le sport. Mm. day métti tey suba ñu daan sa kaw nga nangoo ko continuer wala tu n'es plus dans le a des morts c'est un Euh, point bu bu sensible la waxtaan tey bu xaw a mettee wax rawatina ñi nga xam ne dañoo dëkk mbuur hmm. ñi dee di suñuy rakk suñuy jarbaat dinaa wax fii buuba xaw a jeexale xam nga xalifa hmm, hmm. ki nekk toi bi nekk Europe di atte day atte comme ni ki waxee ci affaire àdduna bi yëpp mais réew mu nekk ak ni muy doxee man contre ma décision bi taas jël parce que mën nañ ko jël jël nañ lu arbitre benn nit rek jooyloon réew lëmm ñaata yoon la Sénégal di football ñu jooyloo ñu ndax benn arbitre ñu ñëpp mbuur rek wa iso ñëpp mais man li sama crainte xam lan la ni ñu ni ñu accueillir décision TAS bi Sénégal fédération def na ni comme dara xewul rek quoi alors nañ ko programmer dana fubal yi c'est que ko dañu banaliser lu graaw lu mesurul conséquences yi. wala ay convention ñoo ñu jëng. non même bu ñu jëngee am na même nag la fédération non bu ma dox bu ma dox la fédération est obligée d'appliquer la voilà c'est ce que je dis amul amul choix xam a la moralité moo tax ma ne bi ñuy convoqué elle peut exister ah mais en nous ñu xool mais dès lors que tu es à une boo xam ne c'est mondialement mooy loolu tout à fait tu n'as xalaatoo sax di bañ a def loolu soit tu sors du du cadre kenn waxul euh, moo tax ma bi may dévier hmm. dama la décision taas bi kenn mënu ko ñàkk appliqué mais avant ñu koy appliqué amoon ay préalable lu ñu waroon def ci réew mi hmm. Sénégal dañu am ay coutume am ay chance hmm. dañu waroon utiliser chance boobu ñu am Sénégal koo fi gis mbuur boobu jeex tàkk ku ne am nga koo gëm am na loo gëm am na ñuy gëm ay ay croyant lañ tigi mën na jaar ci croyance yu def ay délégation def médiation balaa sax ñuy siiwal affaire bi di programme ay match créer jubale ñaari ñaari club yi d'abord mhm. à mon avis je pense que fédération rôle am mooy mu nekk mu parce que aussi ku la wax ne la pour nga teg ISO ak Stade de Mbour ci benn stade tëj la ñuy yomb na xamoo luy Sénégal mm. wala xamoo problème bi tolluwaa Mbour bul nax sa bopp ah. hmm. te nag taas nekkul fi Sénégal gouvernement Sénégal mooy gouverne Sénégal. tigi man ba léegi problème taas sax du moom a moom préoccupé ñoo gën a préoccupé mooy ñu juste teg loxo ay vidéo jàpp leen ñuy def yenn yi ba xool na leen di àtte loolu moo am gën ama importance man. Hmm. beneen bi dañoo war a def médiation li ko xalif wax kii wax ñu tàppe xol yi d'abord. Hmm. xam nga boo xëy rek ne taas nee na wëy. alors mais maintenant Izo Izo jóg sama waa Izo. Hmm. waruñu woon a prononcé wu. Hmm. il devait pas parler dans les radios. amuñu parole. vraiment amuñu parole c'est ça je voulais dire face à face wax. war a courage di wax dañu leen waroon waxal waruñu wax dañu war a déglu ay mag jóg ñu waxtaan parce que bu lu man di amit yàgg yàgg nañ juboo ci. heureusement yàgg yàgg nañ juboo ci. Hmm. noonu à vie comme ni ko kii waxee. am na ñu dëkk mbuur ñu dem man te léegi laa jaar mais ñoo émission foofu laa jaar. Hmm. Mbour laa dëkk. Hmm, fa laa jaar léegi may ñëw fa laay jaar bu may ñibbi. Eh, ñoom ñu ngi ñëw Mbour suba am na ñoo xam ne koo xam ne ñu ngi dëkk Mbour donc. ci dëkk yi amuñu noonu boo demee Mbour. lébu yaa ngi fa añu ay kilifa moom mbuur bokk ci Mbour. tigi doon fay kilifa teg fa lu ne. nga ñëw wakaam ay lébu nekk fu doog sa ñoon mi samay jàmbaar ay lébu lañ. donc ci xeet boobu dama caa bokk sama deret nii foofu. donc xam nga kon bu doon rey ña ngay ña ngay defante ña ngay day rey sama mbokk doom genn la kon benn xeet la. Mm. je pense que comme benn xeet la ku fa gëmul maam li maamu laay gëm nga Serigne Touba wala gëm Alaaji Maalik wala gëm euh, euh, euh, Jésus Christ. wala Fansour Lana wala keneen. wala gëm Boubou Ndour déedéet bu bandur woon ban bu bandur. non non idéologie pas ci sëriñ. dama lim yu bokkul. d'accord donc ci idéologie. oui xanaa xamoon ni dafa nekk di nangu ni man la gëm. waaw dé dé wax la donc donc kay wax la xam nga dé dé damay dagg foofu ah non dafa ndànk. yow boo may yow boo may mën ngay wër de. waaw d'accord dégg nga mel ni loolu man je pense que. Mm. tëb jël stade de Mbour. Mm. ak ISO. oui ci benn ci benn groupe. oui neen fuba leen suba suba. Mm. d' accord ma te rafetlu lu ko. très bien mais mais aussi. oui d' accord ma ak président. Mhm. maa moo bokk dëkk mbuur gënumaa jooy te picc yi naa sax xam naa fi métti na ma yéen ñoo xam ngeen affaire bi. Mhm. amul loo mhm. ma gën a métti. ça m'a fait très mal bi ma déggee décision bi. dafa mel ne jël paaka di sama xol bi. ce que jour bi ma dégg nii dañoo delloo si ISO. bokk na ci bis yi gën a métti sama xol. parce que ça fait mal quoi je me dis que insulté la quoi. yéen a ñuy fontoo. mais boo demee ba toogaat. day xam ne football yàgg naa jël décision la xam ni du la arrangé loolu yàgg na te day continuer am àdduna tukki mais aussi bu ñu tëbee aussi ne bu ñu bàyyee parce que am na lu war a am waaw mbuur duñu dee duñu duñu ay ay nit yu violent mbuur ay garme fa dëkk je to jure le mbuur waa garmi la ñun duñu reyante de bu ñu wakkaam di def loolu maa je peux jurer que mbuur du jël ay armes ñaar dañuy rey mais dëgg la boo nee boo nee boo nee boo nee mbuur garmi faaw nga teg si wakaam garmi dama ni man parce que ñëpp ay ma feneen mais am man maa ma dëkk laa xam foofu laay wax même mbuur yëpp garmi lañ kam fekk garmi lañ duñu mos a def violence mm. mën nañ am naqar mën nañ ko wane waaye quant à jël ay coupe coupe wala jël ay xeer. waay di rey waa Wakaam. seytaane ñëw sa am birima seytaane ñëw. ça je parle au du sa am. alors alors Ndiaye jikko ji ma la ñu yor loolu du am mukk. dëgg la alors Ndiaye mais nag quand même nañ ko rafetal. merci birima alors Alassane li ma la bëgg a laaj parce que yow da nga démissionné parce que da nga ragal bu ñu nee ba si biir mu am coow ñu jàppale si ne rap parce que bu jo bu mbir xewee dañ naan presque ana ana ñu jiite woon mbir mi yow loolu moo tax. loolu moo tax affaire bi intéressant mooy mooy jur laaj ma lay waaj a laaj uh-huh. bi mbir mi amee ba noppi uh-huh. ban prise en charge moo am uh-huh. ci supporters yi jóge feneen ak fu mu mën a doon fédération est-ce que prise en charge am na dans tous les sens est-ce que am nañu ñëw vers vous pour préparer leen justement seen delluwaat ci biir championnat bi waaw euh, Khalifa euh, nga may ma tuuti rek ma ma balaa maa ñuy sa question ma am lu ma leeral tuuti allez-y parce que dama dégg Sarel ak professeur ñu ne Euh, maanaam décision TAS bi kenn mënu ci def appel loolu fédération ñoo koy gëmloo nit ñi. tribunal fédéral bu Suisse kaay ma wax la fii ay spécialiste fi waaw nañ nekk spécialiste li ma lay wax. waaw nañ dem vérifier ko fu leen neex mën na am appel. tribunal fédéral bu Suisse lañ koy defee. d'accord appel bi fédération bu Sénégal mën na ko def. Papis Papis tu t'inclines ou pas. mën na ko def. voilà donc Papis ah, s'incline. waaw ok bon waaw ah, bu dee am na c'est-à-dire dafa am loo xamante ne. est-ce que fork la may ma xalifa. dafa am loo xamante ne. Hmm. ñun ay Sénégalais lañ hmm. te seen émission bi dañ koy seetaan. yéen ko moom seen yëf. ñun ñi fi toog ñëpp ku si nekk xam nañ sa émission nu muy doxee. Hmm. man avant maa ñëw fii ay mag yu dëkk mbuur dañ maa woota waxi nit lañ ma wax hmm. dafa am loo xamante ne ñun mbuur biri ma wax na ko biri ma wax na ko hmm. gis nga mbuur tey boo demoon tey ngay seet ñi fa gën a tekki dëkkuñu fa hmm. mbuur dëkku sëriñ Saliou dëkku jàmm la gis nga waa mbuur jàmm rek lañ xam dëkku teraanga la ñun ku fa ñëw ñu dalal ñun jeunes yi dañuy wax ñun rabu mbuur gan la bëgg bëgguñu ñun mbuur lañ juddoo <laughs> mais dama laa bëgg xamal ne la gis nga euh, tribunal bi lii lii waa taas génnee mën na am appel yéen a gis yi dama ne. ah bu ko paasee xalifa je question xalifa. waaw xalifa. oui mën na def ab fédération Sénégal. Hmm. mën na def appel. très bien. fédération Sénégal laay wax. Hmm. bu fekkoon na ñoom appel bi sax du ma ci yegg de mais décision tasse bi bu ñu bëgguloon ma am sax du am. Ah ndax ñun ñun ñun bi affaire bi amee ba léegi déggoo waa Stade Mbour wax gisoo ñu def sortie hmm. gisoo ñu marche gisoo ñu def dara. mais dama ne la dama leen ko wax léegi cest à bu fekkee dañoo bëgg a toog fii pour waxtaan ak waa Sénégal. buñ ko buñ jël affaire bi taf tafee ko rek. Hmm. mu jàll. très bien alors may ma tuuti rek xalifa may ma may ma tuuti rek. man damaa nekkoon stade Demba Diop. 14 15 juillet ba ñu xaañ ma fii si bopp ba may ñibbi Mbour dañ ma pansement laa ñibbee. Hmm, hmm. man mi président supporter yi man tiim ay nit yu faatu sama kanam. dama ne la yooyu yëpp ñu fekkee ko dund ko bu ñu toogee si kanamu Sénégal dañoo bëgg ngeen may ñu exprimer wax ak ñoom. parce que tamit gis nga. Hmm. nëpp nëppal mooy indi affaire yi di gën a aggravé wu. il faut ñu yegg ci yeex bi Alassane Alassane attendez ñi mën a waxtaan ñëw jóg waxtaan. non a ma bëgg a wax mooy d'abord man dama wala pour indiwaat ay problème. on est bien d'accord xam nga bëgg man. dama bëgg bu ñu jógee fii. Hmm. solution génn fii. ñu dox ci jàmm am parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ. moo tax ñu olof fi ñun ñaanuñu yàlla. wakaam di reyanteeg stade Mbour stade Mbour di reyanteeg wakaam loolu ñun bëgguñu ko. te taxuñoo jóg évidemment évidemment dama ne la da ngeen fi wax benn wax bu am solo sànq. Hmm. da ngeen ne waxtaan. Mhm. waxtaan dafa amoon période bu ñu ko waroon a def. Mhm. mais ba coow li amee. sa question bi lay dugg. fédération bi ngay wax. Hmm. du fédération. du ligue. du waa wakaam ñun. tey nañ fi suñuy néew trois deux bi ñu gaañoo yàlla defee ñu gaañu samedi lundi lañ jot néew yi. Mhm. bi ñu jot néew yi bi ñu jot néew yi tele laay waxee. Mhm. néew yi presque ñëpp dañoo yàqu. ñu ngi suul suñuy néew 19 heures lañ commencé suul ba 5 heures matin. Mhm. di jaabante de almer à almer bu ñu duggee ci almer yi ñu woote ne néew diw dugg ñëw na ñu am na booy yoo xam ne ñoo tëdd ci almer yi di xaar néew yi. tëdd ci bàmmeel yi di nelaw. très bien kon yooyu bu ñu toogee Sénégal. xamante ne prise en amul dama ne waxuma waxu prise en charge prise en charge parce que man mbuur laa nekkoon. man maa nekkoon mbuur di récupérer malade di hôpital man ak suñu groupe yi. Alassane on s'est pas compris Alassane déglu ma rek. may ma may non non yow may may. may ma tuuti gars leen. dama bëgg ngeen déglu dama ni sa xol diise noonu la xolab ñëpp a diise sa xol da nga kaa bës nga wax ak tey. dama bëgg message bi mën a jàll léegi déglu ma. message bi bëgg a jàll xale xam nga sama question moo leerul sa bopp. Mm. prise en charge bi ma xam nga lu ma doon. Mm. xam nga mbir mu mel ni bu amee. Mm. ñu xam ni wiiri wiiri jaaru ndaari ala kulli xaal. da ngeen delluwaat ci championnat. ala kulli xaal. US Ouakam day delluwaat ci championnat. est-ce que ñi leen jaboote. ci réew yëpp fu ñu mën a féete. ñëw nañ si yéen. tegal leen une prise en charge quelconque moo xam sur le plan psychologique. ak yeneen ak yeneen pour préparer leen pour ngeen dellu siwaat malgré avec le traumatisme ci question boobu laay nekk ma lay ma la wax sànq rek mm. da nga may bàyyi ma tontu la di nga mm. dégg li may wax li nga bëgg a wax dégg yëpp di nga ko dégg mais question bi dafa dafa bàgg dafa am yoo xamante ne ay paramètres yoo xam ne il faut ñu indi ko mu leer c'est pas vague waaw ma rek ma wax la Khalifa gis nga li ngay wax nii président Macky Sall jox na stade de Mbour 5 millions jàppale ko ci ay frais médicaux ay ay ay psychologue Mbour déplacé leen mm. mais dama ne loolu du woon foofu xam nga man fan laay waxee stade de Mbour dafa dund lu metti bu fekkoon na ñun tey dañoo jàpp suñu mer wala ñu garder rancœur football nañ ñun ak MPC ci même saison bi final coupe du Sénégal mu gañe ñu hmm. dañoo xeex dañoo gañe dañoo pare ñibbi mais dama ne la bi affaire bi amee ñun dañoo dañ cee wéet fi may waxee mooy santiruñu kenn koo xamante ne tey peut-être kii waroon nañu apporter ñu soutien am taxaw suñu wet ñu gis ko du fédération laa la wax du du du du du kenn man waxuma ne waxuma waxu xol wala dara mais dama lay wax leen li ñu dafa am loo xam ne bi am loo xamante ne nit ñi xamuñu problème bi fi mu toll waa Mbour Sénégal ñu bëri xamuñu fi mu toll waa Mbour moo tax may wax ne mm-hmm. man li ma tax a ñëw fii tey dama bëgg bu ma fi jógee man ñu ut solution ci problème bi parce que man ay taxumaa jóg waa Mbour ay taxu leen jóg mais problème bi pour mu faju mm. il faut ñu nangoo dem ba ca yax ba am na yoo xamante ne nit ñi Sénégal xam xamuñu nu mu demee il faut ñu leeral ko ci bopp nit ñi loolu laa leen bëgg a wax professeur xam nga sànq gis naa la ngay kii mooy la mon frère xaw la giif tuuti cest à bul yaakaar ne kenn ci ñun toog na fii di néewal fitna boobu daanu ci yéen booba na bu fekkoon dégg nga émission bañ ci defoon man génn naa sax ci mbedd ñu ne ma ah professeur tu été trop loin parce que suñu xool dafa tooyoon ñun ñëpp on a été unanime dans la dénonciation et la condamnation de ce qui s'est passé. mais boo déggee fi ñuy waxee mooy li la wolof naan nettali xuloo xuloo la. maanaam góom boo xam ne cicatrisé gul boo ci nekkee di uññi di indi di nga indi encore. mu mel ni ca situation de départ ba nga nekkoon. kenn xeebul li nga xam ne moom moo dal mbuur parce que nit mënta ñàkk ay bakkan tuuru deret tuuru loo xam ne boo remonté dans l'histoire sportive du Sénégal xëy na dee yàgg na am violence yàgg na am mais mosul yegg la am ca quinze juillet. ñun ñëpp ñu ànd condamné ko xam nga li ñuy bañ alsan mu nekk une fixation boo xam ne bu ma doon ah utiliser langage psychologie dafay faire le lii d'un traumatisme traumatisme boobu faire le lit d'une fixation identitaire c'est plus grave encore mu jur attitude boo xam ne au lieu que mu endiguer mais dafay nekk loo xam ne day ne di sécréter violence xam nga koo xam ne ku sës rek ci moom doomam faatu na amul discours bu ko mën a apaiser déedéet waaye lenn nga ko mën a wax ne ko du tere àdduna wéy du tax fubal jeex du tere lii am xëy na mu amaat ci yeneeni anam waaye ñun suñu devoir mooy en tant que notre jeune frère ñu ne la Alsane man boo je prends mes responsabilités bul démissionner en disant parce que ëllëg mën na am ay violence yu graaw ñu tëj ma déedéet dañuy nangu rafetlu ànd ak comme ni ko biri ma waxee ne loolu dootu fi am parce que nous avons affaire à des gens responsables mm-hmm. nous avons affaire à des gens civilisés waaye côté bi ngay wax ñun ñëpp dañ ci àndoon ne. Hmm. c'est une faillite collective. Hmm. à commencer par la responsabilité de l'État. parfaitement loolu ñun ñëpp dañ ko wax. tigi jërëjëf. journaliste ba ñuy wax Cheikh Tidiane Gomis fàttali naa ko fi. Hmm. maa ngi déglu nii seetaan par hasard Walfadjri deux jours avant mu naan li may dégg de. ah suñ football bi de bu ngeen moytuwul dina jur musiba parce que li ma gis supporters yi des deux camps yi ñu nekkee ay voix yu bëri yu mel noonu di alerter. ñu nekk en pleine campagne électorale amul ay force de l'ordre doy ñu imposer compétition bi xamoon état d'esprit bi loolu nekk c'était une faillite collective on l'a tous dénoncé waaye nag mm-hmm. Alsaan wax dëgg yàlla Xalifa ko baal ma réew mi ñun ñoo ko bokk mm-hmm. di nga gis ñaari xeet ñaari dëkk boo demee Rwanda tey c'est l'un des pays les plus développés d'Afrique ci lan la Rwanda jógee génocide utu ñu jàkkaarloo di reyante tey ñu comprendre ne dañu war a booloo fóot xol xool ci kanam boo tey booy laaj économiste yi dañ naan mais Rwanda on n'a pas compris réew mu jóge ci reyante fitna bu mel nii booy dox yi doo gis sax benn mbuus bu tegu tout le monde travaille dans l'union dans la paix des kër et des âmes loolu lañ bëgg mu am fii voilà c'est cela la am Rwanda amul fii de c'est des millions de morts ouais. et pourtant fóot nañ seen xol ànd tabax seen réew parce que xam nañ ne ala kulli xaal àdduna day wéy. dëgg la foofu foofu la ñu wax xalifa deux mots rek deux mots. waay man euh, dafa dawal sama man de naa ci ñiy ñaan stade de man man Mbour la dëkk suba fa la man fa weekend maa nga Mbour la dëkk am naa kër Mbour fa la dëkk. Hmm. du ma étranger ah fa la dëkk. dama wax ne man dinaa bokk ci ñiy ñaan. waa mbuur man de bu dee xam naa Mbour ba léegi xaw ma nag mais bu dee xam naa Mbour ba léegi kenn musul dégg violence jóge ci départ ci ci Mbour kenn musul ko dégg Sénégal le Mbourois n'est pas violent man loolu laa xam ca laa màgg fa laa ca laa fa nawetaane ca laa def yëpp mais wax dëgg yàlla Mbourois violent musul am hmm. te jàpp naa ne aussi Mbour ku ne xam na dégg ngeen kankuran Mbour le dimanche sunu mbokk yi génn. tëgg jëmba jëmu ñu gën tugg ci mbedd yi fecc dàqante yooyu daa am donc man de bokk naa ci ñiy ñaan pour ñu am esprit de dépassement kenn ko ñu fàtte mais man aussi bokk naa ci ni na ñu def médiation man loolu lay demander très bien parce que xëy xëy rek ubbi stade ne waa iso jëleen mbuur ngeen fubali waay loolu aussi parce que ñëpp bokkuñu mentalité. très bien réew mi ñu nekk ñëpp tolluwuñu mentalité merci merci loolu loolu bu ma soñoon. Hmm. ñu waxtaan. merci Birima parce que bu ñu waxtaanee waa Mbour. waxtaan ak dirigeant yi. parce que dama jàpp laan. Birima merci bi waxtaan même rek waxtaan bi. <laughs> mën naa jur ba mën naa jur ba ci tribunal ba sax. Birima tu tournes rond. non non dama ne. li nga waxoon ngay waxaat rek non man de pire que ça. oui dana wax li waxtaan mën a jur. Hmm. mën a dem ba tribunal bi sax. Hmm. waxtaan bi apaisé ko. Demba Ka bonsoir allo allo. bonsoir Khalifa. Demba na nga def ça va bien. maa ngi si jàmm bu baax ça alhamdulilah alhamdulilah donc yow yaa ngi Mbour bokk ci stade de Mbour. donc ñu ngi lay déglu. waaw mm-hmm. waaw je précise que ni rek euh, man maay coordonnateur collectif. Mm. pour la défense des intérêts des Mbourois. très bien. waaw tout d' abord damay damay nuyu sama sama mbokk Mbourois bi nekk foofu. Mm. di Alassane Ndiaye mon frère. nekk ancien président comité supporter bu stade de Mbour. Mm. bon di préciser aussi il faut il faut parce que recours mën mën na am. Hmm. recours mën na am parce que fédération moom mën na nekk partie défenderesse mu dem tribunal fédéral suisse. oui pour pour au moins mu def benn recours boo xamante ne incompatibilité à l'ordre public la. très bien maanaam tey jii décision bi TAS rendre dafa incompatible ak ordre public. ok loolu loolu la loi fédérale suisse moom moo ko moom moo ko prévoir. la loi fédérale suisse. c'est ok ok délai bi 21 jours la juste une précision. ok ok léegi léegi ñun dañuy wax rek que ñun euh, en tant que jeune Mbourwa en tant que tamit des Mbourwa averti samedi passé def nañ conférence de presse def conférence de presse pour attirer attention wu euh, euh, fédération bi ak état du Sénégal. Hmm. pour wax leen ci risque yi nga xamante ne moom la décision tâche bi mën a mën a apporter. oui mais à notre grande surprise ñun dañu benn mépris boo xamante ne moom la fédération adopté ak benn mépris waa par rapport au Mbour waa. comment parce que tey mënuñu comprendre benn précipitation bu am tey jii ñu bëgg pour que ku réaménager calendrier bi dugalaat wa waa waa USO parce que loolu mépris lañ ko mën a jàppee. noo ko gisee woon xëy na li mën a li ko mën indi mooy benn bras de fer xam ne amoon na fi ci renouvellement yi ñëpp ñu ngi koy rappelé wu yàggul dara. Mm. benn mbuur waa muy à l'occurrence président Mbadji Diagne moo koy nuyu moom moo nekkoon candidat bi dañ jàpp ne élection bu jàllee dafa war a jàll mais waru de waaw tey jii au moins bu loolu amee war nañ ñoom ñu jàngat jàngat ci loolu xam ne lii war na mën am ñu ñu teg au moins les préalables yi nga xamante ne tey au moins. Hmm. préparé na terrain bi pour loolu noonu mais nga tëb tëb tey jii rek nga ne war a ñëwaat Mbour football si. ci saison 2017 2018. très loolu mën ñu ko comprendre benn yoon. très bien très bien merci beaucoup merci Demba. merci ñu lay gërëm Bouba. waaw mais Khalifa waaw man pour revenir. Euh, li ñu doon wax sànq. Mm. cest que il faut il faut ñu comprendre benn benn affaire je pense que li xew Mbour ñu am ñi nga xam ne moom mooy président supporters yi. am ki nga xam ni moo woote léegi. Mm. gars yi nga gis que ni il sont dans les dispositions de ne pas en tout cas se verser dans la violence. Mm. xam nga loolu aussi dañ koy sant yàlla. Mm-hmm. waaw c'est un acquis mais il faut aussi ñu comprendre benn affaire gis nga boo amee acquis da nga koy préserver on est dans un pays boo xam ne. à chaque fois on dit fii Sénégal lii du fi am na lii du fi am loolu mënuñu ko def éternellement et loolu ça ne doit pas nous empêcher de jël décision yi ñu war a jël c'est un match bu xew Sénégal ki championnat Sénégal c'est mm. pas un match international état bu Sénégal moo ëpp doole ak niveau su peser sur les risques je ne parle même pas parce que quand on parle de risque on parle de violence je ne parle pas de violence je parle de la leçon bu ñu war a tirer ci lii mhm. c'est-à-dire que nous on à la disposition de l'État du Sénégal moo ñuy moo ñuy faj moo ñuy jàngal moo ñuy protéger il faut que ñu taxaw ci il faut pas ñu jël jëkkati drapeau wu fii jàmm la yàlla baax na dara du fi xew mhm. loolu dañ ko dépasser parce que ñii wane nañ ko mais ça nampe pas problème bi il faut que ñu jël émotion yi ñu tegee ko na li ñu waxante dëgg dama ne mhm. dama ne dans un pays loo xam ne lii xew na fi y six mois que jànguñu si dara ñu war a nekk fi naan noo c'est nañ leen média du affaire li ñuy def nii. Hmm. du suñu rôle. heureusement que ñu am émission yoo xam ne dañu toog fi di wax c'est pas de mon du sama responsabilité de ma responsabilité ma toog di di xam nga la mooy responsabilité bi. Hmm. mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk. les principaux responsables de ce qui s'est passé parce que ñoom ñoo organisé match bi. mais mm. non non non non non quand je te koy def tey mooy waxal leen leen ñoom non fi may waxee dama ne. Mm. su ma ko deful kenn du ma ŋàññ su ma ko defee dañ ma naan alhamdulilah. tigi yaa may déglu dafa am ñoo xam ne dañ ñuy dégg naan ñu ñuy jàngal di ñu faj di ñu protégé c'est leur rôle. c'est leur rôle te ñooñu nekk ñi nga xam ne ñoo yore responsabilité bu njëkk de sur ce qui s'est passé. Mm-hmm. on ne peut

qu'est-ce hmm. de tout ce qui se passe au Sénégal comme catastrophe comme drame ban leçon Khalifa ah boo fi limee de non non def bàyyi mu bàyyi moom eggali maan ah, dama ne la dama ne la aujourd'hui aujourd'hui hmm. su fekkee dañu toog ci benn débat wu télé macha allah ñëpp di ñu seetaan ñu ne fi ku ne wax discours hmm. et après on ne retient rien du tout ñun ñëpp suñu salive dañ ko yàq dama ne six mois après ce qui s'est passé pour man c'est extrêmement grave. On ne parle pas de violence, on oui. parle de l'acte que l'État du Sénégal hein, a posé et doit poser, devrait poser. Aujourd'hui, su état bi nekkee ci benn ci benn état moo ëpp doole ay championnat oui. am na loo xam ne saa sénégal règle à un autre niveau. Mm-hmm. bu ñu tegee ci tableau taas xaw ma les waxuma la de violence mais psychologique. ak les les les familles qui ont perdu des parents. billaahi wallaahi taalaahi bu boobaa. gars seen seen décision bi dinañ ko xool merci beaucoup il di nga yaakaar ni xam nga Alassane Alassane di bon di ngeen yaakaar ni damay def fixation ci démission Alassane bi. Mhm. mais démission bi sa sa démission bi c'est assez bavarde c'est-à-dire. xam nga sànq laaj naa la laaj naa la prise en prise en charge bi est-ce que amoon na mais peut-être que comprendre woon bu baax mhm. léegi euh, mais indi nga si ay éléments de réponse heureusement. donc am na ñu jotoon ñëw ak seeni psychologue mais vite fait après ñu dem seen yoon donc bu fekkente ne yow gëm nga ne lu mel nii mën na amaat ba nga démissionné est-ce que c'est parce que yow mi dëkk ak gis nga ni ñoom pareeguñu mentalement pour sóobuwaat ci mbir yi et am na alternative du coup boo ñu war a mën a jox. waaw Khalifa euh, moom laa leen wax léegi rek cest à problème bi ku dëkkul mbuur wala ngay fréquenter mbuur mënoo xam fi mu toll waa moo tax ma laaj la ko. moo tax ma hmm. man li tax ma joxe sama lettre démission xam naa ko man stade Mbour sama deret la nekk. xam nga déggoon ngeen fi stade Mbour ak Casa Sport coow la amoon biir Casamance. boobu xale laa man maa dirigé woon convoi bi demoon. Hmm. bi may dem dama làqatu sama yaay. xale bu ndaw laa ànd ak ay mag mais man maa dirigé convoi bi ñu war a demaat année bi stop gars man maa dirigé waat convoi bi ñu dem. man dama lay expliqué wax rek ne la bi. yoon bi laa lay wan cest à bu fekkente ne su ma la posé question nga divagué soo ko tontu du leer comme da nga bëgg mu leer ñu ñëpp ñu bëgg mu leer mhm. da tontu si question bi après bu la neexee nga li ma la bëgg a wax mooy hmm. sama démission way man li tax ma démissionné damaa dëkk mbuur drame bi ma fekke ko hmm. dund ko xam liñ ci dund xam fan la toll waa mbuur man ma jiitee supporter mbuur yi xam li nga xamante ne ñoom moo ne seen xol ba léegi dañuy jooy te seen rongañ faragul donc dafa laaj dafa laaj balaa ñuy wax ay taas ay recours rek ñu toog ak waa Mbour ñëw jàll leen waxtaan ak ñoom defal leen wàccee seen xol ba mu wàcc mhm. ñu door dugg ci ay détails yu ay dem taas ak ay appel ak yooyu dama ne dafa am loo xam ne même bu la ko la koo may a sàmm bu wax lu bari la SOS la moo tax ma taxaw si dama lay wax ne en tout cas dafa am ñuy gouverner kii wax na ko léegi war na jël seen responsabilité te bu fekkee ni fédération am na possibilité def appel defu ko devant l'histoire il est responsable de tout ce qui se passe wala se passera demain au Sénégal hmm. parce que loolu da ko war a def c'est une obligation parce que kon looy wane ni du ko deful bu deful obli bu deful bu deful bu deful recours bi hmm. mooy wane ne ba muy jël décision c'était pour leurrer les Mourois hmm. c'est la vérité bu ñu nëbb wax ji parce que bu fekkee ne gëm na lim décision bi mu jëloon buñ ko mettre à nu noonu war dina ko topp su ko bu bu fekkee ni xaw ma vraiment xaw ma xaw ma règlement wu football yi xaw ma ko na leer tout suite mhm. du ma ci xaw ma ci dara mhm. mais ci liñ li ngeen wax yéen mhm. bu fekkee ne am na possibilité def appel te jàpp naa jàpp naa ci sama xalaat bu gàtt jugement bu ne ci àdduna na kaam dana la may possibilité nga d'accord wala nga bañ cee d'accord te am na am na ay délai waaw dama ne waaw dama ne buñ ko waree def na bar dama ne dama ne ñoom fa ñu fay la mooy bu dee am nañ ko au lieu ñu seet nuñ ko nuñ war a dindee loolu. Hmm. ñu commencé jënd ci logique gu réintégrer ISO. Hmm. xam nga loolu aussi li kiy wax euh, lu Mbour waa wax la loolu mépris la hmm. mu ne ko leneen lu mépris mépris la. très bien non c'est la vérité mënoo wax leneen lu mooy faalewu ma leen nañu wax wax bi mu leer bu ñu ko rafetal ñoom dañoo jiite ñëpp ñoo yilif Mbour ñoo yilif ISO sa njaboot boo ko amee doxal jàmm mais yaral ki tooñ. yaral non parce que aussi nag bu bari wax mënuñu chaque jour ñuy rek nañ muñ ba suba nañ day ba ëllëg ñu muñ mën beneen beneen musiba. très bien alors Omar Gueye Omar Gueye bonsoir Omar Gueye allo Omar Gueye. bu ma uyoo léegi da ngeen ko xam Omar Gueye yaa ma dégg voilà on va laisser Pierre s'en occuper alors Charles. waaw Khalifa il faut que chacun se remette à sa place. Hmm. violence fépp la am Sénégal Mbour fii amoon na fi violence fépp te yàggu fi il y a eu huit morts le juillet fii rek Iba Mar Diop il y a moins de deux semaines si biti xeer yaa ngi foofu hmm. qu'est-ce qu'on a retenu 15 de Sénégalais ont été traumatisés il est traumatisé hmm. ñëpp gis ay images ñuy tee image yi di ko teg en boucle hmm. ñuy gis benn tribune buy màbb ñi ni di daanu ñi di di faatu ñu koy teg ñu koy teg mu am lu ma ne am lu ñu wax il faut qu'on se regarde en face et qu'on se dise nos vérités tigi nous sommes mal élevés nous sommes mal éduqués on ne fait que du chantage tas club la xam xamul supporter club bi la intégré tigi waxu club la d'abord après il y a les supporters qui parlent parce que affaire bi supporters yi la arrivé et là ce n'est plus seulement une affaire de la fédération c'est une affaire qui devient une affaire nationale huit huit enfants sont morts mu ne ñu ñibbi car sur toute nuit ñu toog di mettre en terre seen doom yi seen rakk yi ak seen demenu c'est-à-dire on n'est même pas capable de les accompagner dans cette dernière mission là de celle d'homme qui met en terre oui. ça veut dire quoi ça ça dama ne il y a une faillite nous avons assisté à une faillite collective ça c'est un fait tey qu'est-ce que nous sommes en train d'assister à une autre faillite où tout le monde dit tout et dit n'importe quoi. Parfaitement. Je ne suis pas d'accord. On est sur oui. Le président de la fédération est un avocat. C'est quand même Maître Augustin Senghor. À moins qu'il soit le plus nul des avocats que ce pays ait produit pour qu'il ne comprenne rien à cette affaire-là. Je ne pense pas que ça soit le mm. cas. Il faut remettre les choses en leur place. Ce qui s'est passé dafa am benn absence bu doy waar. oui mais kooku daf fi yàgg moo fi ne une incapacité notoire à faire face à des problèmes il y xam nga lan mooy wax bi tey. oui mais. Uzo mun na football at bi yëpp te du maanaam kenn du dugg maanaam benn supporter du dugg seetaan match am. oui il y a de choses qui peuvent être faites mais fii gis nañ ko dans tous les pays du monde on a vu un pays boo xamante ne une finale de coupe d'Europe mu am ay boor ñu football final ga. Charles Faye. c'est-à-dire aujourd'hui Charles Faye bi mbir mi amee. bi mbir mi amee. tout le monde tout le monde a accablé. waa déglu ma rek bi mbir mi amee. comme li nga wax am ñuy wax te war a ñoo wax wax n'importe comment. ñu ngi accablé ñetti alkaati. te ñetti alkaati yooyu. lan lañ mën si loolu. mënuñu si dara donc di fayit bi c' est à un niveau beaucoup plus. looloo tax ma ne la looloo tax ma ne la looloo tax ma ne la parce que contexte la woon on est d' accord. non non c' est pas non non ah. attention. non non s' il vous plaît. bàyyi ko bàyyi ko mu daaneel bàyyi Charles daaneel. s' il vous sa oui ça veut dire nous sommes devant un problème sérieux hmm. man mënu ma toog di nangu si benn plateau. Hmm. du te ma ko nangu feneen. Hmm. fuy am benn sénégalais. de menacer yeneen sénégalais wala di kii il y a un président de la président des supporters de Ouakam est en prison hmm. il a tué mais tu as raison de ne pas être président j'inviterai tous les présidents de tout de toutes les associations de tous les clubs de de de, de, de démissionner parce que hmm. ton avenir est en jeu Youssou aujourd'hui c'est là le véritable Youssou Ndoye Youssou ah, Ndoye salaamaaleykum waaleykum salaam ah moo jaraaf naka def naka def mbokk du leen a fay di ñaan yàlla doon leen jàmm yépp ñëpp. ah jaraaf sab oote bi de jekk na rafet na te mel na ni dal dinay méngoo ak oote bi nga xam ni dégg nga sa xarit bii di birima oote ko fi buba feeru ko professeur niki noonu papis ba ci Charles Faye kon lépp mat na ñu ngi laa déglu waaw xanaa di leen ziar rek di ñaan yàlla doolu senegal jàmm amin parce que àdduna mag ñi dañ wax ne kenn du ko yenu dañ siy dox tigi du waxaat ne bu ndox tuuroo an baaxaa fa des hmm. Sénégal ay bokk lañ toujours ma wax ne lii xew ci réew mi nanu bàyyi xel ci mag ñi lii nu fi wàcca tigi dëgg maa ngi dégg léegi birima ci waxin waaye nit mooy juum maa ngi dégg léegi président comité supporter boobu. Hmm. lii Charles fay wax mooy wax ci. Hmm, hmm. moom comité supporter président comité supporter wax na ko dëgg la dañu waroon a teey ñun ñëpp Sénégal ñëpp dañ war a teey def nànka parce que ay bokk bu fekkente ne coow baaxul si ñoom dañ koy xam. te way wuy dëpp gaal. indi ko way wax ne kenn du ko way si tefes. tigi Mbour nekk Sénégal Wakam nekk Sénégal. waaw. wax naa ci conférence de presse ne man kii toppa si man di jigéen Farimata Pay lañ ko tudde bu Mbour suma papa. Hmm. da doon liggéey ci Mbour. Hmm, hmm. Farimata Pay moo ko doon jaayal gaalam mu tudde ko doom parce que seeni i diggante ñoom ñëpp dafa rafet. tigi lii nekk Wakam bi ay waa Mbour ak lii nekk Mbour mais suma jarbaat. Hmm. Birayma. waaw Birayma Sarr. Hmm. Wakaam la fubal. mais hmm. mu ngi actuellement actuellement Mbour. est-ce que nekkul sax stade de Mbour wala see beneen équipe boobu. Birayma bi doon nekkoon bii nekkoon euh, ak centralu Wakaam. kenn mënuñuy tàggat le du am. liñ ciy wax mu ñaaw bu ëllëgee dañ koy waxtaane rek fii loo fi gis noonu lay demee. tigi tigi tigi jaraaf ñu ngi laa gërëm. bo bu fekkente ne ñun Sénégal. Hmm. daanu daanu comprendre na ni ñun ay bokk lañ. Hmm. te yàlla jël ñu dugal ñu si benn ruq mu nekk Sénégal. Hmm. ñu yoraat ay gaal gaal yi taw ñu ne gaal gii bu ci ci turu Sénégal. mais xam naa xanaa loolu rek war na tax ñu xam ne ay bokk lañ. sa dëgg-dëgg. yàlla mii dara teewul yàlla mii nga xamante ne mooy defar yàlla na defar lii. très bien léegi euh, jaraaf. waaw jaraaf déglul birima jaraaf waaw maa ngi lay ziyaara jaraaf sama xarit la nag sama xarit la sama papa la sa woote bi sa woote bi man de bokk na ci ñi mu sedd seen xol trop ndax kilifa nga te Sénégal yi xam nañ sa sa ñeme dëgg mhm. man de ma sañoon yow nga xam ne ñëpp déggal nañ la ci réew mi mm. say mbokki ngi mbuur mm. yaay kilifa doomu mbuur yaay kilifa doomu wakaam mm. nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy sooke. Mm. dox médiation. Mm. jubale xale yi. Mm. ñu bokk ndey bokk baay. xam ne réew mi ñoo ko bokk. kenn mënu koo xar ñaar. tigi dëgg la loolu day man bokk naa ci ñi la koy ñaan. waaw nga bokk ñu koy dox pour loolu am man de bëgg naa ñu waxtaan balaa football am. man nag xam ma d'accord. waaw. loolu nga wax ànd naa si. waaye dama bëggoon pour que dëkk yi. képp koo xamante ne yaa ngi si réew mi. nga comprendre ne noonu da nga fa laaj pour ñu defere ñu waaye mag ñi leen waxoon nekk kenn du atteel sa bopp. tigi lii xew mooy Birima. d'accord naa pour que yooyu yëpp nekk. mais ñii nga xamante ni ñoo yor football bi. xale bi wax na dëgg ah. parce que bu fekkee ne da nga jiite fédération. mu am ay éléments yu mbuur yoo xamante ne ay doomi mbuur doomi Sénégal yu wàññeeku si biir affaire football lii jaadu booy boo xëyee nga jubal sa ñoom ne leen marché tigi mais léegi fi mu nekk nii c'est pas tard mm-hmm. parce que tey rek am na ku ku dee wakaam mm. am na ñuy juddu léegi léegi nii fi nga toll nii. tigi nit a ngi jëm léegi hôpital pour yóbbu soxnaam wala magam wala rakam pour mu wóor si nii. tigi tigi tigi. dëgg la kay léegi euh, bala ñu lay bàyyi sama xalaat mhm. loolu ma wax yow Birima mhm. man d'accord naa si mhm. waaye dama bëggoon pour que benn affaire mu am xam nga Sénégal protocole dafa bari parce que temps yi passé Cheikh Mansour Diouf doxoon na ba Wakaam Ngor Yoff war a dem jaale ji waa Mbour sama xarit mais biñ ko programmé ba na samedi ajjuma la ñu dindiwaat loolu ne loolu du nekk mënul nekke noonu te ñii ko wax ñu ngi fi si réew mi fukk bu fukki di gas fukki di sul du suti. man nag sama xalaat mooy. Hmm. état du Sénégal la jël programme bi su jëlee programme bi ñu oo coutume bi bu nu oowee coutume bi ñu jël nag ilimaan yi teg mu nekk xàllaaw xal rasulaay ak ñun. Hmm. ñu jël équipe nawetaani Mbour jël équipe nawetaani Wakaam ñu toog ci benn place. bu ñu neexee sax ñu defe ko fu neex waxtaan. très bien très jërëjëf. jërëjëf jërëjëf euh, yàlla euh, na leen jërëjëf jaraaf jërëjëf mel ni kii da si bëgg de. Sénégal gépp parce euh, que salatul fatiha Afrique am jàmm mandu yëpp am jàmm. a sànni ah, jaraaf balaa ngay dem. waaw balaa am na lu mu la bëgg a yot si ay kàddu. Alassane Alassane Alassane moom mooy. supporteru Wakaam bi salaamaaleykum. supporteru stade de Mboy maam Alassane la tudd. Hmm. waaw maam ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax. noonu laa delloo ziar. waaw euh, ñun nag ñun waa Mbour xam naa ne loolu moom ump la. Hmm. waaye nag yëfi bi mu amee. Hmm. Euh, dañ ci déggoon ay kàddu yoo génne woon gis ngeen lii tey fii ngeen di waxee nii. Hmm. bu ngeen ko njëkkee woon. du egg sax fii si yàlla. ñun toogoon nañ gis ay sortes yoo def ci journal bi gënoon naa tàngal suñu xol. Ah. waaye nag comme tey ñëwaat nga ci nii. du def ñun mooy li may wax rek ñun waa Mbour. amuñu benn rancune amuñu xol xol xolu fayu amuñu dara. waaw. mais lii boo leen ko njëkkee woon xëy na fii yëpp du fi ak du jar sax dem taas. très bien kon kon kon kon mat na. waaw mhm. waaw. xam nga lu olof wax. Mhm. melentaan màttul parce que dafa dafa dafa xiif. Mhm. nit lu na xës sa kaw xam nga bii ngeen waxee sa commencement ba di ngeen meroon. am ñu wax wax ju ñaaw jëmale ko si wakaam. te man may may may may taxaw pour wakaam ngoon mm. dafay jaadu pour que lu yëngal xale yi yëngal ma tigi mais tey jii su fekkente ne dañu doxal ak njulit wala ñu doxal christianisme ak lu ñu mënta def ci diine ñu jàpp ne yàlla mënu sàkk ngoon dañuy mer dañuy bàyyi tigi dama ne pare naa pour que wakaam ak mbuur am jàmma yàlla na waa Mbuur fekk ñoom ñu mel noonu waaye buñ ko jëkk woon nag buñ ko loolu du defar defar mooy. Hmm. nañu seet ne mag ñëpp benn lañ woon. très bien très bien jërëjëf. yàlla na la yàlla aar alsaan. Hmm. waaw waaw man jàppal ne Sénégal. Hmm. foo aw si àdduna sénégalais lañ lay tuddi. incha allah waaw loolu dëgg la. yàlla na leen yàlla doon sutur. amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jaraaf kon prof. je pense que mbir mi mbir mi leer na mën nañ kaa tënk fii. ñu ñu ñu ñu yëgoo. soog soo a wat gaal gi ñëpp ah, boo ko euh, amul kenn parce que erreur bi mooy. Hmm. ñu yaakaar ne dañ koy nasaxal. Hmm. wala dañ koy néewal doole. Hmm, parce que boo gisee ma ne jaruñu ñu ciy dellu si. ñun ñëpp dañoo d'accordoon ne mais li fi am du yoon mu am fi xalifa. c'est-à-dire que Sénégal. ñun ñëpp d'accord nañ ne c'est une société de la permissivité maanaam laxisme bi dafa bari masla bi dafa bari comme ni boobu waxee on constate mais on ne retient jamais les leçons de l'histoire xam nga loolu yëpp ñun dénoncé nañ ko ba pare nit ñi dañ waroon dem massawu leen état bi dafa waroon taxaw bañ xam ne gannaaw ba mu sàgganee ba loo xam ne mënoon nañ ko éviter mu am hmm. moon na indi ay mesures d'accompagnement yoo xam ne xëy na du ñu yegg si fii mais gannaaw loolu yëpp ñun ñëpp d'accord nañ ci li ñuy jublu mooy xool si kanam fóot xool yi mm-hmm. xool ci kanam boo gisee ma jël exemple bu fort ba bu Rwanda c'est un exemple extrême bu ma jël pour montre comment kii nga xam ne day jóge dem rey violer kee jóge ñëw rey violer kii ndeyam kii baayam kii ci kanam mais bu fekkee ñooñu ñoo mën a daje ne ala kulli xaal hmm. ah ñun ñi mënuñ tàqali ko ñoo bokk réew hmm. fóot loolu ba aujourd'hui tabax seen réew hmm. damaa jàpp ne ñun itam man Alassane su ma la xoolee dafa am énergie booy dégager cette énergie là mu nekk l'énergie de la jeunesse c'est celle dont la nation a besoin pour énergie boobu bu ko consumer <coughs> bu ko lakk ci mer jàmmarloo dañ maa sàgganee dañ maa nangamee déedéet loolu am na ba pare góom la mais Alassane dellul ci sa comité supporter ya gëmloo ne malgré l'injustice malgré le mépris malgré le désintérêt hmm. des pouvoirs publics loolu yëpp dañ koy jël te xam ne du ñu delloo bakkan ni ñi fi jóge hmm. ñu ànd xool ci kanam tabax réew mi sa énergie bi hmm. c'est une énergie qu'il faut canaliser une énergie positive Alsaan bul démissionner Alsaan bul mer man dama lay xool sa bëti xonq Alsaan reegoo damaa bëgg nga xool ma ma rey al Alsaan mais voilà xam ne métti na métti na mais nañ xool ca kanam. nañ xool ca Charles c'est bon léegi Alassane ce qu'on va faire. je te montrer je vais montrer euh, ce qu'on va faire Alassane. mais balaa ñuy dem Alassane balaa ñuy dem. alors symboliquement symboliquement. Mhm. balaa balaa ñoo dem balaa ñoo tëj antenne bi symboliquement nga xutti kayit gi démission bi après nga dellu li la jaraaf wax après mu jeex non par exemple la base mënu ko non non non du loolu non xalifa man ji du foofu de xalifa xalifa oui Alassane dama bëgg nga may ma tuuti rek ma ma ma ma tëj comme ça ñu tëj waaw hmm. bon man man li may li may terminer rek mooy euh, dama bëgg Sénégal hmm. ñu xam ne Sénégal ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. ñun ñëpp ay sénégalais lañ. très te ñun ñaanuñu yàlla mukk ci àdduna. Hmm. li amoon hmm. di amaat ci àddina hmm. waxuma Sénégal di àddina waxuma laa nag Sénégal. Sénégal ñoo ko bokk te kenn mënu koo xar ñaar te sport dafa war a boole man sport dafa ne sama xol sport rek laay dund dama bëgg nag waa gouvernement Sénégal laay waxal jaarale ko ci ministre de sports Matar Ba ba ci président Macky Sall nañ jóg absolument yabal ay nit hmm. parce que waxaam am na ay kilifa Touba am na ay kilifa biri moo na ko sànq Tivaouane am na ay kilifa Ndiassane am na ay kilifa te Mbour ku nekk secte bu nekkang fa hmm. bu ñu boolee ñooñu ñëpp Touba yabal ñu ndaw Tivaouane yabal ndaw Wakaam indi ndaw mbuur indi ndaw ñu bokk dem jaale ji parce que nag waa Sénégal ba léegi jaale si wuñu waa Mbour hmm. fédération di waa Wakaam di waa Ligue Mhm. ligue région de Thiès moom ñëw nañ mais ligue ñëw ñëpp kenn jaale seegul mbuur mhm. da ciy baax nga ñëw jaale mhm. jéggalu ñu jéggal la nit ñi avancé parce que ñun mënuñoo wax a wax ba waxam dootul football la ci at ci àdduna mënul nekk waxam faw mu ñëwaat mais ñëw bi na am fu mu jaar ba violence bañ a amati ci stade yi ñun loolu moo ñu tax a jóg ñun waa mbuur amuñu benn problème ak wakaam amuñu benn problème ak benn équipe mais nag dañoo bëgg ñi nga xam ne ñoo ŋànk suñu football bi nga xam ne ñooy suñuy kilifa di ko teg ci yoon bu ngeen seetloo li may wax mm-hmm. Mm-hmm. mbuur safe fait presque ay at a ngi nii mm-hmm. ren Kër Madior moo jël coupe amateur jël championnat amateur Stade de Mbour jël coupe de la ligue MPC jël coupe du Sénégal c'est la nouvelle capitale du football footballu Sénégal bi yëpp a ngi mbuur bi foofu ba pare championnat ren bi Stade de Mbour tey bu ngeen xoolee mu ngi deuxième kon ñun sport moo ñu ñor dëgg la nañ bàyyi loolu xel Alassane buñ ñu yàqal loolu parce que ñun liggéey moo tax a jóg Alassane dellul nga jëlaat sa comité de supporters ñëpp avancé dañ la soxla lenn rek moom ma koy tax euh, jëlaat lenn moom ma mooy procureur de la République way way Serigne mm. mu bindal ma këyit ne ma problème bu fi am new demal nga jël présence supporters parce que man manuma diriger waa mu très bien loolu moom bu amee ma jëlaat ma li ma neex si Alassane ak euh, li mu ñëw si plateau jàkkaarloo mooy Alassane bi moo ñëw bi moo toog ni kanam gi meloon ak léegi nii dal na donc yaa ngi na je pense que tension bi mu ngi wàcc te yàlla na jëm kanam. Mbour a besoin de toi. Alassane Mbour soxla na la merci beaucoup merci d'être la yàlla sàmm. alors ñu ñëw si deuxième thème bi.